Togo a réussi à vous imposer euh, le rapport non, non, de force. c'est pas c'est pas parce qu'il a réussi. À non seulement il l'a il l'a réussi mais il vous nargue aussi. mais ngeen def def ay bain bain de foule. mais Mamadou Awa Mamadou Awa tey jii nii il n'a pas réussi s'il avait réussi day toog biir Dakar fii nii mais dafa daw làqu ji. non làquwul fa mu nekk fa mu nekk maire la nekk. mais fa mu nekk maire nga dëkk fa ngay ñibbi. mais loolu kañ c'est comme ça foofu kañ la fa gëj. yàgg yàggul ah il y a il y a. Korité la fa gëj Korité la fa gëj lan la fay defaat barki Demba Ndiaye bu ñu koy wër toog nañ combien de jours trois jours kenn gisu ko. biir biir këram sax nekku fa woon. dafa daw làqu. vous êtes daw làqu moom du awa la preuve ah, ànd ak mhm. kon nga xam ne cette personne là n'est pas responsable. tey s'il était responsable wala boog bu ñeme woon def bu ko tribunal woowee day ñëw taxaw ne maa ngi nii.